jërë ngeen jëf Bamba Fall jeexal na te yeggul jeewal nguur saa ngi yoon ngir dem ànd jeeg Macky Sall l'observateur xana ñu maire bu Medina di Bamba Fall ma nga yoonu gàddaay fabu na buub ay kalma njangaanam ay dëbësam ay déebam ki déebaa déebam ngir dem fekki Macky Sall nijaayam Xaadim Mbay moo génn àdduna président Macky Sall ne woon ko danaa la jaale ji démb nganuk soor suweya président bu Libéria gi muy amal fii ci réew mi ñëw faussé programme ba président am ngant taxoon démb mu yebal fa ab délégation ci njiital premier ministre bu Sénégal di Mahammed Ibn Abdallah Dionne mu àndoon ak Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur àndoon ak maître Oumar Youm directeur de cabinet am àndoon ak Yakham Mbaye ak Saliou Keita ñu demoon démb kër Bamba Fall jaale ji ko ministre a Ndoye Seck yéenekaay bi nañu waroon naa bokk ca délégation ba waaye jafe-jafe coordination moo waral gaañu dem bàyyi ko fa ba ñu yeggee Bamba xamal na leen ne sama diggante premier ministre bii toog muy Mahammed Ibn Abdallah Dionne romb nay relation di jëflante diggante ñaari ko soxlaa daay sol saay dal ko ñu toog waxtaan fu ma masa toog man Bamba Fall ne leen président Macky Sall man doomi réew mi la samam réew fu ma soxlaa danaa dem wuy ji te du ma hésité njariñul Sénégal ku ma ci woo ma wuy sama yoon ci parti bi ma bokk wala nit ku may sóor les na nañu Macky Sall premier ministre am di badu man lépp Mahammed Ibn Abdallah Dionne ak directeur de cabinet am ak ministre intérieur am la yónni ca Médina ngir ñu dem Père Ndiaye Bamba Fall daraage ko ba leen Bamba Fall gisee ci la cëpp journal les éco nañu la ko bun Dionne wax nag moo rëy moo ko cëppeel ndax nee na ko nit ku dëggu nga xam nañ bu baax a baax li nga tekki fii ci Médina waaye bul ma sa réere sa mag la soxna maanaam Marème Sall sa sœur la Bamba Fall ne ko boo demee neel président gis naa li mu def sori na ci man lool waaye man góor pire la kenn du jam naa ni Vox Populi nañu Bamba Fall waxul ba tey lu leer ci ndax day dem ànd jeeg président Macky Sall am déet Le Quotidien ne ko Bamba Fall kay li mu wax dara gënu koo leer nee na moom doomu Sénégal am réewum bu ko soxlaa day wuy ji Idrissa Seck ak Macky Sall diggante ba xeeñul neex Le Quotidien nañu coowal gaz li fi ji moo fay xeeñ ba léegi leetar bi Idrissa Seck bindoon président Macky Sall bërki démb doon sàkku ci moom mu siiwal li nekk ci accord bi dox diggante Sénégal ak Mauritanie te ci wàllu gaz bi Sénégal gi yëpp xam la ca nekk yéenekaay bi nee nañu Macky Sall tontu na ko démb la ko tontu ci visite de travail bi Source A yaa doon amal ci réew mi Macky Sall na ñàkk xam dëgg-dëgg La waaye bu ñuy débat dañuy débat ci lu ko jar débat ci lu am njariñ waaye aw jotug toog di wax ay kasaawa kasaawa libération nañu Idrissa Seck songu gi mu songu Macky Sall ci coowal accordu gaz bi jëlewu ca jàmm Macky da koo tuutal da koo sewal les éco nañu yëf yaa ngi tàmbalee jax Macky Sall fëgg na Idrissa Seck ab hypercute idi moytu fente ko ba noppi dollil ko beneen kurpañ bu saf sàpp nee ko monsieur le président bul daw débat bi publier accord bi nga xumtoo signé ko ak réew Mauritanie ci secret te mu bàyyeegul ma ngi koy fitnaal ak di ko ñàq-ñàqal ci coowal accordu gaz bi l'observateur nañu Macky Sall dafa moxoñe Idrissa Seck ndax nee na ko accord yoo xam ne c'est déjà public taxaw naan nañ ko publier ñëpp yëg ko ñàkk xam la ca nekk lak ñàkk xam état ni muy doxee maître Nafissatou Diop Cissé xëy tagalu lu toll ne Saalum ci directeur ba noppi di gaaral Idrissa Seck notaire bi responsable politique APR ba ca Kaolack di maître Nafissatou Diop Cissé ne ñu ci ne a a a dox ci xelu askan wi am na fii ci réew mi ay politiciens yoo xam ne dañoo daanu dërëm yoratuñu ko bëgg waa extérieur di leen financé moo tax ñuy wër di wax ak a jëfur ci kaw askan wi na fi ne li may sàkku ci responsable APR yi moo di ñu génne li président Macky Sall liggéey ci réew mi teg ci taabal ji waxtaane ko ne président liggéey na ci réew mi lu ko joxaat deuxième mandat ba Sénégal indépendancé ak léegi Nafissatou Diop Cissé ne baykat yi cër bi ñu am ci réew mi ñoo ngi ko fi soog a am lu am leneen ci xët mu njëkku moo di xibaar bi soxal plateforme des forces de l'émergence kuréel la gu bees gu ñu taxawal ci réew mi yéenekaay bi nañu docteur Cheikh Kanté la ñu ko dénk mu dajale bépp mouvement de soutien buy jàppale président Macky Sall ngir falaat ko 2019 démb lañ ko doon waxtaane ci njiital docteur Cheikh Kanté ci teewaayu ministre Mame Mbaye Niang Souleymane Jules Diop député Alelo ak Youssou Diallo Assane Ndiaye dellu na TFM bi leen ko Échos combat Papa Sow Ama Baldé promoteur bi ko tëgg di Assane Ndiaye jëlee na combat ba ca Sen TV wan na ginnaaw Bougane Gueye Dany yóbbul ko waa TFM télévision Futur Média Les ko nee nañu mooy wane komba Ama Baldé Papa Sow